أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñoo ngi ànd ak yéen ci téere bii di sarxu du'a min alkitaabi wa sunna xam ngeen ñoo ngi ci tegginu ñaan jàngale woon nañ ci ñeenti mbir tey ñuy jël juróomeel bi mbokk yi juróomeelu tomb bi mooy xudurul qalb fi du'a dañuy sàkku ci ki nga xam ne mooy ñaan boroomam mu teewal xolam ci ñaan bi ñu ne loolu nag teggin bu rëy rëy la teggin boo xam ne ci teggin yi gën a rëy ci sart yi tax yàlla di nangul ab jaam ñaanam haada al adabu al azim mu ne teggin bu réy bi allazi mooy teggin bi nga xam ne huwa min azami surut ijabati du'a ku bëgg yàlla di la may boo koy ñaan teewalal sa xol ci moom moo tax mu ne war nab jaam jaam bi nga xam ne mooy ñaan mu xër torop xër lool bëgg lool teewal xolam ci kanamu borom asamaan ak suuf mu wóor ko ne maa ngi toog ci kanamu borom bi xoolal tey mbokk yi nit ñi li tax tey seen jaamu yàlla yi mënul sa sell tey buñ ne woon benn waaye dafa toog ci kanamu président de la république da ngay gis ñu lan la ngay contrôler ni ngay toogee ni ngay wax ak moom sa kanam ngi ni nga koy def sa bët yi sa loxo yi dañ naan la doo am droit dikkati sa loxo yi ah sa tànk yi doo ko tàllal vraiment dañ lay jàngal noo xam ne noonu ngay toogee kilifa waaw léegi nag ndax dafa am kilifa gu gën a màgg yàlla yow nga ni korof ci kanamu yàlla ne danga koy ñaan soxla ci moom ba pare te amoo yar amoo teggin wégoo borom bi tabaraka wa taala te yaa ngi toog ci kanamu borom kanam bi kon war nab jaam bu toogatee ci kanamu yàlla soxla ko di ko ñaan mu réyal ko mu yëg ne dafa war a ñaan jaam bi day ñaan boroomam mu yëg ne xolam bi dafa war a teew xol bi dafa war a takkoog yàlla dafa war a yeewu xam ne mi ngi ci kanamu yàlla al imaamu nawawi rahimahullah nee na iclam anna almaqsuuda addu'a huwa xuduru lqalb imaam nawawi nee na na nga yëg li tax ñu naan ñaan luñ ci jublu lan la ñu jublu ci ñaan mooy nga teewal sa xol ci kanamu yàlla na nga xër bu baax a baax a baax sa xol bi di teew ci yàlla lii mooy ñaan mu ne waqad bayyana saadiqu almasduq sallallahu alayhi wa sallam xuturatul xafla yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi leeral danger bi nga xam ne moo nekk ci ñàkk a teewal sa xol ci sooy ñaan tàggante gi ngay gi ngay nekk booy ñaan yàlla sa xol bi bañ a yeewu jamono ji ngay ñaan yàlla nee na loolu dafa bokk ci mbir yi nga xam ne daf lay xañ yàlla du nangu sa ñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci xadis boo xam ne mu ngi ci musnadu imam ahmad al imaamu albani wéral ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne iza saaltum allaha aza wajal ayuha nnaas fasaluuhu wa antum muuqinuuna bil ijaaba waay waay mbokk yi bu ngeen di ñaanati seen boroom yéen nit ñi ngalawaay ñaan leen ko te ngeen am kóolu te ne moom yàlla mi ngi nangu seen ñaan mu ne na ngeen yëg ne fa inna allaha la yastajibu li abdin daahu ala zahri qalbin ghafilin na ngeen yëg ne yàlla de du nangu ñaa jaam boo xam ne yàlla du nangu ñaanu jaam boo xam ne dangay ñaan yàlla di ko woo waaye sa xol bi teewluwul yàlla danga sàggan li ngay wax ci làmmiñ bi la yam yeggul ci xol bi yàlla du nangu loolu ñëw na ci beneen riwaaya mu ne uddu llaha wa antum muuqinuuna bil ijaaba ñaan leen yàlla jamono ji ngeen koy ñaan na ngeen am kóolute ne yàlla dina leen nangul mu ne waalamu anna allaha laa yastajibu duaan min qalbin gaafil yëg leen ne na leen wóor leer ci yéen naññ na xol bu sàggane yàlla bu ñaanee yàlla du ko may mbokk jullit yi juróom benneelu tomb ci teggi ni ñaan ginnaaw teewlu xol mooy addu'a fi raxaa'i wa sidda mbokk yi li ëpp ci ñun li tax tamit ñu am problème fii mooy bu ñuy ñaan yàlla rek dañuy fexe ba am bu ñu amee problème rek la ñuy ñaan yàlla problème rek c'est problème rek damaa war a lii damaa war a nga nangam nga doog a ñaan yàlla waaye bu fekkee ne affaire yaa ngi neex yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi wér poos bi am na dara sa yoon ci yàlla waaye bu feebar yi commencé tartar yi commencé jàngoro yi commencé nga commencé tàllal yàlla loxo du noonu bu nuy ñaan yàlla su neexee dañ ko war a ñaan bu naqaree dañ ko war a ñaan bu ñu wéree dañoo war a ñaan bu ñu feebaree dañoo war a ñaan bu ñu amee dañoo war a ñaan bu ñu ñàkkee dañoo war a ñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man sarrahu an yastajiba allahu la inda shadaidi wal karb fal yuksir du'a fi raxa xadis boobu mbokk yi mu ngi ci sunanu tirmisi yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne képp koo xam ne bëgg na su ñaanee yàlla may ko ci jamonoy tar-tar ak jamonoy jafe-jafe na bëril ñaan na bëril ñaan ci jamonoy jàmm soo bëggee ci jamonoy jafe-jafe ak feebar ak jàngoro ak tar-tar soo bëggee soo ñaanee yàlla yàlla may la jamono bi nga féexee jamono bi nga nekkee ci jàmm jamono bi nga wéree jamono bi nga amee jamono bi nga soxlawulee dara ñaanal yàlla jamono jooju wala abdu saalix jaam bu baax yaarifu rabbahu taala fi kulli axwaalihi jaam bu baax day soxlaal yàlla ci waxtu wu nekk ci ay waxtoom ci heure bu nekk ci ay heure am ci jamono ju nekk ci ay jamonoom guddi bëccëg waxtu wu nekk soxlaal yàlla na nga soxlawoo yàlla defal yàlla mu nekk ci sa wet nekk ci sa ndeyjoor sa càmmoñ sa kanam sa ginnaaw ci kaw ci suuf ne la yàlla jege fa huwa yad'u rabba nay ñaan boroomam jalla jalaaluhu fi sarraa'ihi wa darraa'ihi ci jamonoy tartar ak ci jamonoy neex ci jamonoy yomb ak ci jamonoy jafe ci jamonoy wir ak ci jamonoy feebar ci jamonoy am ci jamonoy ñekk ñàkk ak ci mbooleem xew-xew yeeg jamono yi fa man kaana kazalika kaana allahu la kaana allahu taala lahu wallahi képp koo xam ne nii nga mel ci yàlla yàlla noonu lay mel ci say mbir yàlla moomu samian qariban mujiban wa muayidan wa nasiran mbokki julit yi ñun ñëpp nañu ànd xam ne yàlla mooy aji dégg ji bu ko woo mu wuy la ndax day dégg yàlla mooy aji jege ba boo ko woowee mu wuy la yàlla subhaanahu wa taala dafa jege waaye mu ju mu jiib day wuyu yàlla day dégg dégg na la jege na la boo ko woowee mu wuy la waaye boo sàkkoo ci moom ndimbal mu dimbali la waaye boo sàkkoo ci moom làq mu làq la kon lu fi desati iza ma waqaa fi shidda wa balaa fa inna al jaza min jinsi l amal mbokk yi su fekkente ne dangaa nekk ci tartar wala dangaa nekk ci balaa wala dangaa nekk ci jàngoro wala dangaa nekk wala dangaa nekk na nga yëg ne fay bi kat mooy xeetu jëf jë li la yàlla di fay rek mooy xeetu jëf jë nga jëf wa lihaada looloo tax najja allahu yunus min batnil huut mbokk yi xoole yonent yàlla yunus lii moo tax yàlla musal ko ma nga ca biiru jën ci mbàq ci ñetti lëndëm la nekk fi zulumati salaasa ma ngi ca lëndëmu mbàq ba mbàq baa ngi ci biiru jën bi waaye ma ngi ca biir géej gi ci ñetti lëndëm terewul mu ngi woo yàlla yàlla dégg ko fa lawla annahu kaana min al musabbixiina la labisa fi batnihi ila yawmi yubaasun allahu akbar yàlla nee na waa ji ci ñetti lëndëm yooyu mu nekk su fekkoonte ne du ma ngay tudd yàlla foofu mu nekk naan laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin yàlla nee na duma ko wuyu yàlla nee na su waxul foofu su waxul woon loolu danaa ko fa bàyyi mu sax ci biiru jën ba nekk ci mbàqu jën ba nekk ci biir géej gi ba yowmal xiyaam bis bu ñuy dekki yàlla nee na ma doog koo génne kon gis ngeen waxoon nañ sànq ne yàlla day dégg yàlla dafa jege yàlla boo ko woowee mu wuyu la yàlla boo ko sàkkoo ci moom ndimbal mu dimbali la qaala alxasanu albasri ما كان له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا في حال الرخاء ما كان له صلاة في بطن الحوت moom day ba mu nekkee ca biir géej ga julliwul de joxewul azaka woorul waaye jëf yooyu daf koo defoon avant jëf yu baax yooyu daf koo defoon avant muy am problème ndeke da ngay def jëf yu baax balaa ngay may problème da ngay jaamu yàlla balaa jafe-jafe ñëw nga bañ a yónni yàlla toog rek ba am dara rek daal ne ah xaaral ma ñëw def ñaari rakk ndax yàlla jàppale ma ci xaaral ma ñëw def lii ndax yàlla may ma ko xaaral ma ñëw sama bopp bi dee mee déedéet da ngay def balaa dara di la dal yonen borom bi tabaraka wa taala nee na ci jamonoy balaa wa anna al amala saalih yadfaw an an saahibihi jëf ju baax day défendre boroomam képp koo xam ne ci ñun yaa ngi jëf-jëf yu baax yàlla subhaanahu wa taala dina la protéger ci jëf yu baax yooyu yàlla dina la defal ndam ci jëf yu baax yooyu ngay def ba ëllëg soo amee jafe-jafe boo woowee yàlla yàlla daal lay nangu fastajaaba rabbuna li zakariya yàlla ni mu nanguloo yunus noonu la wuyoo woon zakariya innahum kaanu yusaaricuuna fi lxayraat wa yad'uunana raghban wa rahban wa kaanu lana xaashiin yàlla nee na ñoom ñu baax ñooñu ñoom yonent yooyu ñoom nitu yàlla yooyu ñoom jaami yàlla yooyu ñoom de dañu daan woo di gaawtu ci yu baax yi di ko def gis nga lu baax dañ ci gaawtu kaanu yusaari'uuna fi lxayraat ñoom day dañ daan gaawtu ci jëf yu baax yi di ñu ñaan xoolal dañuy def lu baax ba pare ñaan yàlla waaw yaakaar yàlla ba pare toroxlul yàlla wa kaanu lana xaashiin ñun lañ toroxloon ñun yàlla tabaraka wa taala innahum kaanu mulaazimin al ibada dañoo taqoo woon jaamu yàlla wattaa dañu koo taqoo woon a topp fi kulli ahwaalihim ci seeni mbooleemu jamono ci seeni mbooleemi xew-xew laa yushgiluhum an zalika amrun amul benn mbir moo xam ne soxla woon na leen ba ñu bàyyi jaamu yàlla amul benn mbir moo xam ne yittewoon nañ ko ba bàyyi yàlla amul benn mbir boo xam ne bëggoon nañ ko ba bàyyi yàlla amul lenn lu ñu gisoon ba bàyyi yàlla seen mbir yépp yàlla lañ taqoo woon taqoo koo jaamu taqoo koo topp ci mbooleem xew-xew yi mbokk yi kama afada zalika comme noonu luñ ko gën a leeralee yàlla subhanahu wa taala jàngal nu ko ñëw na ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam loo xam ne yonent bi moonu ko nettali moom mi nga xam ne mooy sangu ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi ci ñett ñi nga xam ne duggoon nañ ca xeer wa ca xunt wa waaye ba ñu ñaanee yàlla ñoom ñett kenn ku nekk sa jëf ja nga defoon yàlla daf laa xettali ca jëf ja kenn ki ne man dama am xale bu jigéen bu ma bëggoon kenn ki ne man samay ndey ak sama baay kenn ki ne man dama liggéeyloo woon nit histoire boobu incha allah mbokk yi dina jar ñu nettali leen ko jàpp naa ne sax xam ngeen ko waaye ñu fàttali leen ko ci ñett ñooñu kenn ku nekk jëfam ju baax la xettali ko woon yàlla daal leen di xettali kon ñëw na ci ci ibnu abbas radiallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na taarraf ila allahi fi raxa yaarifuka fi sidda mbokk yi yonent bi nee na yàlla dañ koy xam ci jamonoy jàmm yàlla boo nekkee ci jàmm xam ko soo nekkee ci lu jafe-jafe mu xam la waaw xamal yàlla boo wéree xamal yàlla boo amee xamal yàlla boo féexee xamal yàlla boo nekkee ci jàmm saa yoo amee jafe-jafe yàlla xam la saa yoo feebaree yàlla xam la saa yoo amee ay tartar yàlla xam la wal muraadu bil maarifati al matlub min al abd fi al hadis hiya al maarifatu al xaasa allati taqtadi maylul qalbi ila allahi bil kulliya bu ngeen déggee ci waxtaan bi ñu ne xam yàlla lan lañ ci namm ci hadis bi yonent bi wax xamal yàlla mu ne lim ci namm mooy xam goo xam ne xamu xaas la xam goo xam ne xol bi mooy jéng jëm ci yàlla xam ko jox ko lépp waaye nekkul comme ni ko waa Sénégal di waxee tey naan xam yàlla bala ngay nangam nangam gis yàlla yooyu ay caaxaan la jullit xolam fan lay xamee yàlla mooy xol bay jéng jëm ci yàlla yàlla gënal ko lépp mu dagg ci lépp di wettalikoo yàlla bëgg yàlla xelam di dal ci yàlla mu rus yàlla jox yàlla jëmm loolu moom mooy xam yàlla wa naqala alsahaaba haadihi alwasiya li gayrihim min attaabiin sahaaba yi nii lañu toxalee lii ma wax yóbbu ko ci taabiin yi taabiin yi daan ñu koy indil qaala rajulin li abu darda benn waaye nee na abu darda aw sii nii dénk ma fa qaala uzkuru llaha fi sarra yazkuruka allahu azza wa jalla fi fi darra kenn ci nit ñi moo dem ci sahaaba bu mag bi bu tudd abu darda ne ko abu darda dénk ma mu ne ko del fàttaliku yàlla boo nekkee ci yombute boo amee jafe-jafe yàlla daal lay fàttaliku wa anhu udu llaha fi yowmi sarraika laallahu an yastajiba laka fi yowmi darraika ñëw na ci beneen riwaaya mu ne dee leen woo yàlla ci jamono bu ngeen nekkee ci féex ci jamono bu ngeen nekkee ci yombute ci jamono bu ngeen nekkee ci wér su ko defee bu ngeen amee jafe-jafe bu ngeen ñaane yàlla yàlla wuy leen kon mbokk yi ñaari tomb yooyu yooyu la ñuy def sunu dars incha allah bi iznillahi tabaraka wa taala nu ñaan yàlla sunu borom mu nangul nu ko dars bii di ñëw ñoo ngi jël septième bi ak huitième bi bu soobee yàlla yal nañu yàlla nangul asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.